alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع القنين waxaadani ilay bitaani min baadi ma sababi taxayri wa jarani fi ilal ulumi wal fawsi wal amali bil mahrumi summa salaatu bisalaamin tabia ala allasi xasiya an tabia halal la si man bi maraadi ixtada fi sirri wal jari yakunu muqtada huwa allasi haajara lil madina bi amri rabbi fasaana diina wasilati li maliki rafiici muhammadin xayril wala safiici وعلي وصابي النجوم الخاعر النفوس والرجيم هساوين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك لا عليم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 moom Cheikh Mamadou Fadal moom Serigne Touba Khadim Rasoul moom it ab nuyoom day bàyyi koo ci kaddu way juram di Serigne Ahmadou Rafaay moom Cheikh Mamadou Fadal jëm si nag ci mbooleem jullit yëpp ak taalibe yi ci fii ñu toog di barab boo xam ne Cheikh Mamadou Fadal moo ko goroon ngir lëggéeyal sëriñ tubaa ci sas wi leen joxoon na leen su ngeen ko àggalee fu ak xiiwal mën a ne ca lew danaa leen ko tegal ci seen kanam. te liggéey boobu moo di jumaay Touba ñëpp xam xaaliya taxawaay bi ci Cheikh Mahmadul Fadal daan am ak li fi daan bàyyi ko di dem ci jumaay Touba joojee mu mel ne suuf soosu nag ñu daan liggéey di yóbbu ci jumaa ja moom la sun borom fayewaat Cheikh Mahmadul Fadal ñu war fee def jumaa mu mel ne kon jumaa yi Touba ja barkeel gu ma barkeel moo jur jumaa yi Aliya ji Cheikh Mahmadul Moustapha ginnaaw waajuram mu defaraatoon ko ba jumaa ji dëppoo woon ak jamono waaye ku ne xam na ne liy bàyyi ko ci tund di julli si ci jumaa yi aliya xajatuñ ci mu ne nag ginnaaw jumaa yi Tuubaa lañ yokk sañees naa yokk jumaa yi aliya ku ne xam na ne madinatul munawwara dañ koo yokk makkatal mukarrama dañ koo yokk kon yokk mënu fee ñëw mënu mënu mënu fee jógee loolu moo tax Cheikh Mamadul Moustapha xalaat ne day yokkaat jumaa ji nag ci wet gu ne yaatuwaay ba mat ñeen fukki mètre beraat fa jullikaayu jigéen defar ko ba mu dëppoo ak jamono mu defaat fa ay soroor dëppale ko nag muy liggéeyu Cheikh Mahamadul Fadal loolu moo toog ñu moo tax ñu toog ak seen wayjur bu baax wii di Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne Cheikh Mahamadul Amin moo waxoon ne Serigne Touba ma ko joxoñ te ko ci barab bii nga xam ne kenn nattabli wut ne li fi Cheikh Mahamadul Bachir di liggéey Cheikh Mahamadul Amin gisam bu neex ba moo ko mayoon loole mu xam ne ñii fi nekkal Serigne Touba duñ mën a ñàkk ndaw ndaw loo xam ne am day rafet ab xolam day sell ab liggéeyam day jub ba nopp mu dëppale koog Serigne Touba Khadim Rasoul Cheikh Mahamadou Lamine noon ko nag teg ko ci kanam mbooloo mi tey jii Cheikh Mahamadou Mountakha doyloo ko ca loolee nga xam ne moom la Cheikh Mahamadou Lamine doon wéyal mu ñëw fii nag ngir teg xeeru jumaa ji nga xam ne tegoon nañ xeer wi waaye xeeru yokk wi lay doon mu mel ne yokku Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wa nga xamante ni bii ña fekk jumaa yi Touba ja barkeelu nañ ca liggéeyu Cheikh Mahamadou Cheikh Abdoul boobee loolu moo tax ñu fas yéene yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Ahmadul Badawi mi nga xam ne Cheikh Ibrahim moo ko jox kàddoom te loolu lépp delluwaat ci payuk Cheikh Mamadul Fadal waxoon ne tabaxal naa leen jumaa bindal naa leen ay kaamil jiiteel naa leen juma ji ubbil naa leen daaray kaamil gorol naa leen ay tool sama digganteeg yéen wàcc na yéen a ci des loolu moo tax sëriñ Ahmadul Badawi Cheikh Mahamadul Muntaxa ba mu liggéeyee bibliothèque ba mu liggéeyee université bi xelam demut fenn lu weesu na naa ko teg ci loxol Cheikh Ahmadul Badawi mu ànd ak ndaw yi Serigne Touba yi ñu saytul Serigne Touba li nga xam ne moo ko ñaanaloon boromam wax na ne def dëkkam bii muy dëkkub xam-xam boo xam ne xam-xam buy jëriñ doomu aadama la ci àdduna ak ci alaxira moo tax Serigne Ibrahim jox ko kàddoom mooy ubbi su noppee Cheikh Mahamadul Basir teg ci ay kaddu ñu waaxu nag dem fa ñuy tege xeer wa teg ko waaye murit yi xam ne liggéey ngi nii boo xam ne ku ci ku ci feeñ dootoo dootoo nëbbu ndax liggéey bii kat fii Serigne Fallou yàlla yàgg na fee liggéey di jox Serigne tuba te Cheikh Abdoul Ahad noonu na woon ku liggéeyal Serigne Touba murit yàlla war a fay te kenn naatable wut na Cheikh Mamadou Fadal moom liggéeyal na Serigne Touba daa liggéeyal Serigne Touba ba fàtte boppam wax ne falilu du sas dara ray boppam du sos dara ray boppam du ma fàggul dara sama bopp dama koy bàyyi ak Serigne Touba loolu moo tax Cheikh Salihu Mbacke keroog ba mu toogee ne damaa bëggoon ñu seetal ma ci njabootu sëñ Fallu gi kan moo ci gën a yeyoo ndimbal ñu dimbale ko ndax seen bay liggéey na ko dañ ko ne ñoom ñëpp mën nañoo dimbale waaye kenn dootu leen dimbale loolu mooy la sëñ Fallu faboon boppam jox ko sëñ Touba moo ko may kon liggéey bii yaakaar naa ne ñi nga xam ne dañoo bëgg liggéeyal yàlla di def ngir yàlla liggéey baa ngi noonu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati sunu kàddu di jiital ab nuyoo akub ziar jëmee ko ci a Cheikh Mouhamadunil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér. ba li mu yéenee liggéeyal Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ci toolub lislaam lépp mu mën koo def te nu fekkee ko ak ta ànd ko ak moom di nuyu di ziar Cheikh Abul Baraka. mi Cheikh Mahamadul Fadil di ñaan sunu borom bàyyi ko fi moom itam te may ko wér mook mboolem ay rakkam ak mboolem njabootuk Cheikhuna al Xadim radiyallahu di yëkkati kàddu gi nag ki turu Cheikh Ibrahim mii nga xam ne moo fi toogal Cheikh Abul Baraka toogal fi Cheikh Mahamadul Bachir toogal fi Serigne Abdul Fatah ak mboolem njabootu kër gi waaye di ko teg ci ko loxol Cheikh Ahmadou Rifaayi mi nga xam ne mooy kilifa barab bii di imaamu jàkka ji waaye nuyoo boobu yëpp nag ci loxol Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir lañ koy teg mu jottali ñu ko ñi nga xam ne ñoo ko moom ñëpp. di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha mii nga xam ne moo waral jataay bi moom ak mboolem njabootug Cheikh Mouhamadul Amin di am mbégte mu rëy rëy ci jataay bii mu doon loo xam ne desu na guléet waaye lu war a am la lu yàgg am la itam. doon mbégte moo xam ne mënee su ko natt mënee su ko misaal mënee su ko wax xanaa des ko yëg rek te ñaan borom bi nga xam ne moo tax ñu di ko def ma yeggale ko ci barkeb Cheikh Mouhamadul Fadil ci barkeb Cheikhul Khadim sëriñam ba mu doon loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku tabaxal borom bi subhaanahu wa taala jumaa doonte tuuti na ba toll ne tàggum picc am na ñu koy picc firee sax picc mi gën tuuti muy përantaan sunu borom dana ko ko fay ni ci àjjana kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nu gisee jumaay njaareem waaye nag jumaay Tuubaa ji kon yaakaar naa ne pay googa alhamdulilah te jumaa ji Cheikhul Khadim ba muy ñaanal ña nga xam ne ñoo koy tabax ñaanal ña ko digal ñaanal ña ci jàppale moom ci boppam moo xamal ne jumaa jumaa ji dana am waxafir liman na binaaha rafia waxfir liman amarahum bihi jamiican wa li jamiici man acaanahum ala binaa'iha alladi bi fadlika ictala kon ba sëriñ bi ñaan ñaan googee moom moo xamoon ne jumaa ji dana mel nii waaye tey alhamdulilahi rabbil aalamiina maamam ja Cheikh Mouhamadul Fadil ku ne xam taxawaay bi mu ci taxaw Cheikh Moustapha al Karim moo ko tàmbali def ci lam ci war a def lépp waaye Cheikh Mouhamadul Fadil moo ko yeggale waaye Cheikh Abdoulahi al Ahad ñëw yokk ko kon cheikh Mouhamadul Amin toogee toogaayu cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu jëf jëf ju toll ne ji mu jëf ci yoonu murit waaye jëf jëf ji mu jëf ci jumaay Touba ji ak ci pencum Serigne Touba bi jëf jumaa ju mel nii ci dëkk bi sunu mbokk alhamdulilah cheikh Ahmad Rifaa yi di fi taxaw taxawaay boo xam ne àddina bi yëpp a ngi ciy jariñu addina bi yëpp a ngi koy topp addina addina bi yëpp a ngi ciy bég waaye rawatina nag barab bile mu doon ko xam ne léeg-léeg dama koy tooñ di wax bokk yi ne leen ko xam turandoom lii du la bett ci moom xutba yi buñ ko dee dégg tax jàng taarixu Cheikh Ahmad Rifa yi xanaa li ñu ci def rek mooy yëm Cheikh Ahmadul Fadil waaye dara mënatuñoo yëm kon alhamdulilah ku ne xam na ne jumaa ji buñ ko yokkoon ba penc mi fees du mën a doy nit ñi fi war a jullee si ni ko nit ñi yittewoo itam mënee suta tabax lu ko doy waaye nag yaatu na ñu ngi koy jàllale te xol yi fu nekk nekk na fa di taataan liñ fi def kon dañuy sant bu baax ci jataay bi waaye nag di sant sëñ Moustapha itam ci xalaat bi ndax tuyaaba jooju ci nekk waaye nag yokk liggéeyu ku baax ndax nit bu fi bàyyi ko bokk na ci yi koy jariñ mooy lu mel nii yu ci bari mën naa sànku waaye lii moom buñ ko ko defalee tuyaaba day yokk ci moom rek te ñu ko def sunu borom daf leen di fay waxtu wu ne te foofa dara du fa doy kenn doon doy la foofa sallallahu alayhi wa sallam doy la fa te dañoo bëgg saa bu ñu jullee ci moom ñu ñaanal ko waaye nag képp koo xam ne julli na ci jàkka ji yool ba dana fekk Cheikh Mouhamadou Lamine fa mu nekk. ni ki nga xamee ne képp ku julli ci jumaay Touba sunu borom dana ci fay Cheikh Cheikhoul Khadim mi ko moom waaye njabootam gi nga xam ne ñoo ko taxawee itam lañ ca war a fekk dana ci fekk muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Fadil Cheikh Abdoulaye Ahad Cheikh Abdoul Qadir mboolem rek ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi te tuyaaba jooju ñëpp xaj xaj nañ ci Cheikh Saleh kon daal. ñu ngi ñu ngi ñi ngi am mbégte nga boole ñaar nag yoo xam ne dafa mbante ñàkk ci jamono gi sëñ Fall wax na ko léegi nit ki bu wérul du mën a jaamu yàlla bu wérul du mën a liggéey kon bu ñu waajalee foo xam ne des na fa mën a topp borom bi subhaanahu wa taala waaye des na fa mën a itam euh, toppatoo wér-gu-yaram ba jaamu yàlla yi mën a ànd ak seen sago ba mën a liggéeyal seen borom subhaanahu wa taala mën a liggéey lu defar seen àdduna mën a waaj loo xam ne dana dana dana yóbbu dana dañ ko fekk fañ jëm loolu kon ñu ngi la ci sant di lañ ci gërëm di la xamal ne kenn du ne wax ne yeex na day soog jot rek waaye fépp foo loo ci bëgg def yàlla ko sunu borom jàppandal ci barkeb Cheikh Amadou Fadil di sant Cheikh Amadou Bachir ndax moom ni nga ko sëñ Fallou waxee teewaayam fii kenn du ne guleet digganteem ak Cheikh Mouhamadou Lamine ñëpp xam nañ ko kon bu lu mel ni xewee ci kër gi mu ñëw jiite si ko loola dañ ci sant rek moo tax sëñ Cheikh Ibrahim jox ko cër bi Cheikh Ahmad Refaay jox ko cër bi kon dañ koy jox kàddu gi rek mu àggale kàddu yi nga xam ne kàddu yi Cheikh Mouhamadul Mountakha lay doon yoon mu murid bépp lay doon waaye kàddu njabootu Cheikh Mouhamadul Lamine mi nga xam ne moo ko tegoon ci barab bii mu toog lay doon kon yàlla yàlla mottali te yàlla àggale yëpp njabootu Cheikh Mouhamadul Lamine itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne am ngeen dono ñëpp am dono waaye yéen am ngeen loo xam ne day alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ne kàddu yi néew lay doon ndax kàddu yi sant rek lay doon liñ ci waroon wax lépp Cheikh Ahmadul Bari yi wax na ko li ci jëmoon ci soññee ci fàttali ci njëriñu njëriñul jàkka ak njëriñul fajukaay bi Cheikh Mouhamadou Moustapha di bëgg a tabax yëpp wax na ko lépp nag ñu ngi ko wax ci ni mu ko waxee ci turu euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fii Serigne Touba te yéeli fi yoon muur bépp rawat na digg mag Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye ci turu Serigne Ebo Mbacke mi nga xam ne moo fi xalifa Cheikh Maodo Fadil ba ci rakkam yi ko fi teewal di Serigne Cheikh Ibra ak Serigne Ahmadou Rafa mi nga xam ne mooy imaam bi jàkka ji dinaa ci dellu si waat kon Cheikh Mouhamadou Moustapha ni ko Serigne Ahmadou Badou yu waxee léegi rek fa la jaaraat la ci jiitu rek mooy sant yàlla bu baax ndax bii bisub màgg la bisu taarix la. waaye bisub ak pay la ndax barab bu tëdd bi ñu nekk di aliya ñëpp xam nañ Cheikh Mamadou Fadil la taxaw mu sanc ko mooy jumaay Tuubaa yàlla def daara yu bari ne woon fi ñu bari fi leen tërbiyoo bu wàcce fi mu fi daal liggéey Sëriñ Tuubaa te dara mu ci génn jumaa ji kon bu demee ba jumaay Tuubaa ji àgg ba Cheikh Mamadou Fadil wax baytam yu tëddee na mu ko waxee kama xad kunta taamulu yaa xadima bihi hunnita fi daari naima fa kun fi nicmatin abadan muqiman muaafan murtadan cheikh alxadima kon bu yàlla defee mu dem ba rafaatale dëkk bi cheikh Mahmoud Lamine Baara Mbacke mu wuutu ko ginnaaw cheikh Mahmoud Moustapha Mbacke Fallilu ci kër biir kër cheikh Mahmoud tabaxoon fi jàkk ji kero bañ koy ubbi ñëwoon naa ca boo Serigne Saliou Mbacké moo fi ne yàlla def mu dem ba nekk alxalifatul am di tarixati muridiya yàlla def barab bii fi la wàcceb liggéey kon barab bu seere la ci jëfam moom Cheikh Mamadou Lamine Bara kon Cheikh Mamadou Moustapha mii yàlla def diiru suñ Cheikh Mamadou Lamine Bara di fi nekk dëkku dëkk gutoon fii ginnaaw siñ baar la toxu si fii ngir wéttali barab bi kon ñu koy sant ci dundal bi mu ko dundal ndax ba nga fi ñëwagut ñëpp xam nañ fi barab bi tolloon kon bu demee ba agsi fii sa taxawaay dara jiitu ko ci kon ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëm niñ ko daa faral di seeree rek ndax suñ diggeek sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké eh, yàlla ke ak sëriñ Tuubaa rek ak gooy juróomu tedd ba rek ñoo ko mën a fay rawat na suñ jëmm ji ndax yéenam ak taxawaayam ak cofeelam kon nañ la ko daa waxee rek àndu giiru dund rek la loo xam ne dara du ko dindi ndax suñ digg moom la waaye yow itam rafetal nga ko bu baax ndax lépp lu la war rek ci sàmm ko ci rafetal ko ci nekkam ak ci ginnaawam dara mosu ca manqué ba bu doon ëpp sax damay wax ne ëpp na ba ci bisu tey bii firndeel na ko kon dañ lay santaat bu baax ci turu yoon mur yëpp ndax xam nañ ne la samaam nekk bëggoon Cheikh Mamadou Fadil nekk ca Cheikh Mamadou Lamine Bara nekk ca ca nga nekk mooy nekk fi di yitte woo soxlay nit ñi te Serigne Saliou Mbacké mas na mu dégg coow mu ne Cheikh Mamadou ak Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Serigne bi waxoon na leen ne seenu jaamu yàlla ginnaaw yàlla farataal ci yéen nga xam ne suñ borom ko waral ci yéen muy julli yi ak yi nga xam ne ay farata la la ëpp ci seenu jaamu yàlla mooy di jonjoog nit ñi di dékku seeni métti métti di lu ngeen gën a jaxasoo ñoom rek mooy seenu jaamu yàlla loolu nag yow jël nga ci bu baax a baax ndax loolu rek la fi bàyyi la sa la sa waajur wa nekkoon bëggoo dégg fenn fu nit jaaxle te saafara woo ko loolu nag ci Cheikh Modou Fadi la jógee ba agsi sa waajur mu doonoon ko ci moom nga jëlaat ko ci moom kon dañ lay ñaanal bu baax a baax lii nga yëkkati itam uh, taw feex la ndax liggéey bu toll nii di dëkku Cheikh Modou Fadil di dëkku Cheikh Modou Lamine Bara ak fi mu jaar bu yàlla defee mu dem ba dëkk bi agsi fii mu agsi te jàkk ji wax naa la ko keroog ba ma ko ba nga ko dugalee sama nopp dama ne sant naa ci yàlla bu baax ndax dëkk bi. méngoo woon ak jàkk ju ëpp li ndax àdduna day dox bañ ko fi def tolloo woon nag moom waaye fi mu toll nii ko te yàlla defel leen tawféex itam ndax sëñ Ahmadou Rafahi mi nga xam ne moo koy jiite ñëpp ko doyloo wax naa ko léegi ne ko imaam de yombul fenn ci lislaam ndax sart yi xam nañ ko ibnu asir sa am na fu ko tënkee chartul imaam yi zakarun mukallafun aatun bil arkaani wa xukman yaarifu wa xayru si iri fisqin ah, wa laxnin waxti daal jumhatin xurun muqiimun uddi daal dama caa gëj nag ma xaw koo fàtte waaye jàkka yoonu murit yombut ndax imaam yi yoonu murit yombut ndax ni ñuy segg dafa bari ndax kenn koo xam ne xam nañ ci dara ci taas luy néew ak bari di noonu nga jiite leen loolu moom bokk na ci li nga xam ne ay sart la ci dëkk bi kon nag ku dem ba bu demee ba ay kilifaam doyloo ko tànn ko indi ko fii mu mate ko sëkk nag ndax ay waxam ku ko déglu da ci jëriñu te li muy wax lépp tam da koy wax ngir yàlla di ko seereel yàlla di ko def ngir Sëñ Tuubaa bu yàggu dëgg wax naa ko waaye seere si di baax ndax euh, day am loo xam ne day dalal sam xel ci yoon wi ndax yoon wi moom Sëñ Tuubaa noppi na ci. dara mënu koo yàq dara mënu koo gàllankoor dara mënu koo naxal waaye nag ñun ñëpp buñ sañoon mel na ñoom ñii nga kenn doom mu la mën a jame te xam nañ ne nee naa ko sax bu yàggut fexe ba lu bari jafe na mayis naa jub mayis naa jàng lu bari mën nga caa mucc waaye fexe ba kenn du la mën a gër yombut te xam naa ne xam naa ko ci moom kon dañ dañ koy ñaanal bu baax rek di sant nañ njaboot gépp di ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Cheikh di soññ taalibe yëpp nag na xam naa waxtu jot na kon dara wër ci sasaat lu may teg xeeru te dem waaye dañuy soññ bokki taalibe yi dañuy soññ bokki taalibe yi ci bis bi ak kon Cheikh Cheikh Moustapha nee na ñëpp dañuy toog ba añ ba door a dem kon fi may jeexale rek mooy soññ bokk taalibe yi ak bokk julli yépp ñoo xam ne lii ñuy bëgg def néegu bi yàlla may sa see dàkk ngërëmu suñu borom wari duwaar bi minallaahi akbar te ku yàlla defal feex ba nga nekk ci àdduna am luy néew ak ba bon koo def ci lu baax war ngaa sant yàlla kon ñu ngi ci soññ taalibe yi suñ Tuubaa yëpp nañ ci def luñ man ak luñ mënut te xam ne kat ku ci jëf dana àgg ku ci jëfutu dana àgg kon kenn ku ne na góorgóorlu góorgóorlu fexe ba kenn bañ ko ca jiitu fexe ba kenn bañ ko caa mën te xam ne ku ko def kat bu la Serigne Touba fayee da nga doyal sëkk bu la Cheikh Mamadou Fadil da nga doyal sëkk bu la Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké fayee da nga fi zalika falyatanafisul mutanafisun wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Serigne Moustapha wax ne mi ngi sant bu baax Serigne Djili Mbacké di Serigne Abdoul Khadir di taawub Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moo njëkk a toogee jataayub Serigne Fallou bii. te liggéeyal Serigne Fallou liggéey boo xam ne àdduna bépp teg nañ ci seen bët mu ñëw ànd ak moom liggéey bi ak mboolem njabootu sëñ Mourou Moustapha Fallou gépp sëñ Moustapha nee na mi ngi sant rakkam yëpp nag yi topp ci ginnaawam yëpp ci taxawaay bi ak bëgg gi ak yittewoo gi ak ànd gi nee na mi ngi ñaan yàlla yàlla na leen suñu borom àggale fan jëm liggéey baa noonu nag Serigne Moustapha nee mi ngi ciy sant bu baax. di soññi jëwriñu kër gi di sëriñ xaadim Gueye di jëwriñu dongo yi am taxawaay bu am solo ci kër gi waaye sëriñ Mbagnick Diop ak sëriñ Lamine Sarr di sant bu baax itam sëriñ Mamadou Ndiaye mi nga xam ne palan yeeg lépp moo ko defar sasoo ko te ne yemut foofu di tàllal loxo jullit yëpp nag dana naal jumaa ji naal poste de sant yi waaye xel yëpp dem ci daara yi Cheikh Mahamadou Cheikh Mahamadou Basir wax na ko bi fi Cheikh Mahamadou Lamine Baaray ne ma nga dëkkoon ca Daarul Minan waaye bi Cheikh Mahamadou Lamine demee dafa ne kër gi ma dëkkoon daaru minam def naa ko addi Serigne Touba def ko daaray alquran sëñ daara yee ne fa di jàngale mu génn kër googu ne jaayante ji naa wetti li ji Cheikh Mahamadou Lamine ca fa mu wàccee ab liggéey kon defar na daaray alquran naal na poste de santé naal juma kooku loolu rek la maamam nekkoon kon li Cheikh Mahamadou Bassir wax képp koo xam ne yaa ngi ci biir réew mi te bëgg a liggéeyal liggéey baa ngi noonu ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan képp ku ci def saw ñaq yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo yi àdduna ak jooj alaaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وكن ولي في الحياة والدا موت وفي القبر وفي الرقدا ولا تصلي على في سهامها وافسا واجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا للهدى مكرما وعاديا وناصرا ومنيفا بكل من ينفعني وبالتفا وبسلك المسالك الخلازي ولتكفني عن جملة المعازم وبسلك رب تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصياب وأولني سعادة رسورا سخاوة من بهدها أو دررا والتوب تنجو بك في فؤادي حب خير الخلق في التمادي ولتثبت حبك في فؤادي حب خير الخلق في التمادي وحب علي وسبي الجميع ثم تحب كل مسلم متين يا ربنا يا صلاة يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب suma lay salliyan xayra salaat taquduni ila mulaqaatil hudaat wal turini bi hubbi kulli muslimin wala jina min sadi kulli mujrimin waaxrini bi taatin wal takfini عن المعاصي وجميع الفتن ولتورج الأخيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هيادي وكن معيني على ما يسلم ولتكفني جملة ما يخبئ ولتغنني دقائق الأسرار من علمك النافي والأنوار